asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi réew mi nu bokk ak diine ji nu bokk tax ñuy faral di yëkkati sunuy kàddu tey nag xëy na waxtaan wi du gudd lool ndax mbir la moo xam ni wax nañ ci waxati ci muy wàllu internet bi ak ñi ci nekk di saaga ak a wax ay wax yu ñaaw di ko jëme ci ay nit muy loo xam ni mën naa yee fitna te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu woon fitna ngay nelaw yàlla rëbb na képp ku ko yee waaye tamit képp koo xam si mi ngi yee fitna ak ñi lay bàyyi ngay yee fitna te nu mën koo faj ñun ñëpp bokk nañ ci ñi yee fitna te gis na ni ñu ci ëpp ci ñoom ñii di nga xam ne ngi ci internet bi di yëkkati ay kàddu di ko jëmee ci biir réew mi ci ay kilifa ñu ci ëpp ñu ngi ci bitim réew te luwaa bi maye na justice bi amna na kattan goo xam ni képp ku mën a doon ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi war na laa mën a jëli bu fekkee ni yaa ngi def loo xam si bokk na ci loo xam ni loi bi da koo tudde trouble à l'ordre public te lii ba àgg na foofu ñu gis ni nag janvier bii bi mu tàmbaleeg léegi am na ci ñooñu ñoo xam si ñi ngi yëkkati ay kàddu di ko jëmee ci ay nit bay àgg ci ay saaga ak ay menaces ci ay vidéo ak ay son te ku ciy wax naan li ma yor ci sama téléphone bi lépp lu xew bërëb mi ngi sama téléphone bi yooyu yépp nekk loo xam ne si buñ ci jógul mën naa àgg foo xam ni baaxul ci réew mi ñun nag ñu ko waxee woon réew mi ni bokk ak dina ji nu bokk moo tax ñuy faral di yëkkati suñuy kàddu depuis août 2020 ba tey gi ñi ngi wax ci internet bi rawatina activiste yi nga xam ni lu ñaaw rek la ñuy wax di ko jëmee ci réew mi ak wa réew mi fii mu toll nii nag dem nañ ba àgg ci foo xam ne sii buñ ci jógul mën naa jur ay mbir ndax am ci ñoo xam dem nañ ba yëkkati ay plainte te waaye plainte yooyu du yem foofu mbir mi mi ngi ci internet bi ak ñiy wax ci internet bi waaye mbir mi mi ngi ci ñi nga xam ne ay doomi réew mi lañ te nekk ca bitim réew te lu leen neex wax jëme ci biir réew mi kon loolu ñu ngi koy fàttaliwaat ñin ko war a fàttali muy wàllu justice bi nga xam ne mooy justice su réew mi ñu war cee taxaw taxawaay bañ ci war a taxaw kon ñu ngi koy fàttaliwaat ba tey di wax ni internet bi nañ ci jóg taxaw ci rawatina jamono jii ñu toll nii buñ ci jógul mën naa àgg foo xam ni du neex genn na ci réew mi te it mi ngi bëgg a ëpp ëpp na ba noppi sax nag yàgg na noo wax ni lii mi ngi bëgg ëpp te ëpp na ndax rawatina ñi nga xam ne ñi ngi tudd ay kilifa yoo xam ni ñoom ñi leen di tudd ñooña ban fi jógee ak léegi rek ban fi jógee rek seen maam judduwul ñenn ñi seen i seen bàyyi judduwul kon ku mel noonu ngay wax ci moom wax ju ñaaw ñu bàyyi la ci kenn jéemu ci lenn loolu am na lu muy nduru waaye nag toll na encore foo xam ni muy ñi fi nekk ci biir réew mi ci ay kilifa ay oustaz ay lu nekk ñu leen di tudd buñ dee wax nag bu ñu jàpp ni ñi ni waxal dañ ci am kenn kuñ ci xam wala koo xam si dañu séq ak moom ba tax ñu leen di jël déedéet mboolem lu ñu fi waxal nit moo xam moo ko def wala defu ko suñu yoon nekku ci loolu waaye nag dafa am loo xam ne si diine fekkewu ko ngor fekkewu ko jom fekkewu ko ak mbaax fekkewu ko kon ñu ngi yem ak yéen foofu den wax asalaamu aleykum ورحمة الله وبركاته